مما جاء به الإسلام واهتم به بما لم يهتم به قبله ولا بعده دين سماوي ولا قانون ودعي حفظ النفس ورعايتها والعناية بها ووقايتها من كل أذى ودفع السوء عنها والضرر أجل أيها المسلمون لقد عدت الشريعة الإسلامية حفظ النفس من أهم مقاصدها وجعلتها إحدى الضروريات الخمس التي لا بد منها لقيام لمصالح الناس الدينية والدنيوية bokki jullit yi ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala moom mi nga xam ne mooy buur mbindeef yépp mooy boroom yërmande fii ci kaw suuf waaye di yërëm ñi ko soob ca bésub yomal xiyaam bés bu ñu dekkee ci kanamam moom dong moo fay nekk buur keneen ku dul moom du nekk lu dul ab jaam mbokki jullit yi jàmm ak texe nekkul lu dul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ragal yàlla seen boroom waaye musiba ak noonoo jëmee ci sa boroom mooy ñi nga xam ne ñooy dëkkee di ko tooñ ñi ngi seede na amul benn buur ku moom moom dong moo yooyo ñu jaamu ko te waaye di seede ne moom seyduna muhammad ndawam la waaye yàlla ko def mu nekk kii tëj buntug yonent yal na yàlla wàcceel waamee xéewalam ci moom wàcceel ko ci ay saxaabaam ak képp koo xam ne xàll na seen ak njub di niitu seen leer ba keraa ñuy ji borom bi mbokk yi ñu bokk yàlla ragal leen yàlla tabaraka wa taala borom baa ngi wax ci téeréem bi ne yéen woy gëm ñi ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ngalla waay bu leen faatu mukk lu dul dangeen nekk ci keppaarul lislaam bàyyi leen xel bés boo leen di wuyu seen boroom ana ci lal la leen di fekk mbokki jullit yi bokk na ci jàngale yu mucc ayib ak tëralin woo xam ne wu rafet yi nga xam ne moom lañuy ñuy jàng ci diine lislaam masuñoo gis wala masuñoo dégg ak yittewoo boo xam ne moo xam doxalinu àdduna la wala benn idéologie la wala beneen diine bu mu mën a doon boo xam ne jox na yitte kom ni dis leen diine lislaam joxe yitte li ngante ne mooy sàmm bakkenu doomu aadama sàmm bakken boog mbokki jullit yi ak wottu waaye fexe ba aar ci lépp loo xamante ne mooy aw ñaawteef waaye ak lépp koy lor dafa bokk ci jubluwaay yi nga xam ne lislaam daf ko jox yitte dëgg-dëgg mbokki jullit yi lislaam bokk na ci ay jéegoom yu njëkk ak taxawaayam yi gën a kawe mooy ñu fexe sàmm bakkenu doomu aadama ci loolu la ko defee ci juróomi mbir yi nga xam ni mooy yi lislaam gën a bàyyi xel ñu jot a waxtaane ñaari ci ñaari jumaa yi paase lii di diine baneen bi di xel tey ñu ngi waxtaane ci bakken mbokki jullit yi bu ñu ne bakken dëkk du li nga xam te moom lañuy ñuy walla moom lañuy gis mu fés ci xar kanamu doomu aadama wala jëmm ji nga xamante ne moom la gis muy doom muy dem ak dikk waaye bu ñu ne bakken yëg-yëg la benn damir instinct bu yàlla bind ak doomu aadama mu koy yëgloo yëg-yëg yoo xam ne moom mooy jaxasoo ak xolam tàggat ay cëram ci loolu nga xamante ne moom la ko bakken bi ma jëme ko ci loolu mu ko wommat jëmee ko nag mën na nekk lu baax ñu ne bakken bii de bakken bu baax la waaye it mën na nekk loo xam ne safaan la muy xëcc doomu aadama ci loo xam ne borom bi gërëmu ko ñu ne kii bakken bi bakken bu ñaaw wala bakken bu tilim moom la yor loolu moom mooy bakken kon moo tax yar la boo xamante ne doomu aadama daf koy yar ci biiram ci li nga moom mooy xolam mu fexe ba mu boof ci xolam mbir yi nga xam ne mooy tax ba bakkenam walla ay cëram sawar jeng nga jëm ci li nga moom la yàlla ko wa laa gërëm ba bakken boobu nag lislaam tëralin wi mu ko tëralal ak yoon yu mu ko awal amul leneen wala beneenu doxalin boo xam ne gën na mucc ayib la ko lislaam tegal ndaxte dinañ gis ci jamono ci kaw suuf ay organisation wala ay mbootaay yoo xam ne ñoom dañu ne dañuy dox ci li mooy luy sàmm bakken waaye loolu li ñu ciy gis mooy ñoom seen ak sàmm day am ay bakken yoom te ne moom lañ koy jox am ñoo xamante ne dañ leen koy sàgganeel ak mbootaay walla réew yoo xam ne danañ leen sàmm loolu am yeneen réew ca wet yoo xam ne dañ leen koy sàgganeel bu dee lislaam nag bakken yëpp moo ci li mooy ci kanamam moo tax bokk na lii gën a mag li nga xam ne moom lay sàmmee bakken boobu mooy kenn du teg kirim muy jël bakken walla lor teg ci li ngante mooy bakken boobu yàlla bind moo tax mbokki jullit yi borom ci alquran ne képp koo xam ne rey na benn bakken fa ka annama qatala annaasa jamian ku tuur benn bakken yàlla nee na dafa mel ni tuur nga mboolem bakken yoo xam ne yàlla masoon na leen bind ngir wane tolluwaay ay ak yëg-yëg bi nga xam ne moom la lislaam jox li ngante mooy bakken ci loolu la it bàkkaaru bakken di tolloox bàkkaaru li ngante mooy rey bakken yàlla mas a bind ci kaw suuf moo tax mbokki jullit yàlla tëkku na ci loolu waaye mu ngi ñuy moytuloo ñuy bañ a rotal loo xam ne xalqullahi la bindub yàlla la borom bi tabaraka di wax ne sax gis nga bakken rotal ko mu ngi koy méngale ak li ngante mooy shirkullah muy bokkaale yàlla te ñun ñëpp xam nañu ne bokkaale moom moo gën a màgg ci mboolem tooñ yi ñuy tooñ borom bi borom bi wax si alquran ne wallazina laa ma allahi ilahan axar wala yaqtuluuna nafsa allati xarama allahu illa bilxaq borom bi ne ñii de samay jaam lañ ñoom du ñu jaamu beneen buur ku dul seen borom tabaraka wa taala muy duñu bokkaale yàlla borom bi sof ca wet ga ne ñoom it duñu rotal bakken boo xam ne yàlla dafa digle ñu sàmm ko bu ñuy wàcceel bakken borom bi tabaraka wa taala moo sant digal bakken boobu ñu wàcceel ko ci anam ya nga xam ne moom la ko lislaam digalee sante ko mu waxa ne wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannama xaalidan fiha wa xadiba allah wa laanahu wa adda lahu azaban azima borom bi ne képp koo xam ne rey na ba kenn cig tayeef juumul borotal ba kenn waaye moom moo ko tey borom bi nee na kooku atte moom mooy safara foofa lay beel te sànjum boroom bi dana wàcc ci kawam yàlla dàq na ko ci yërmandeem te danañ ko mbugal mbugal moo xam ne bu tar kon mbokki jullit loolu tegtal la ci ne kenn boroom bi bokk na ci mbir yi ngante moom la digal ñu sàmm mooy ñu bañ koo rey mooy ñu bañ koo rotal moo tax loolu chariatul islamiya min rasuliha ila xulafaiha li ngante mooy diine islam tàmbale ci ab yeneen yonentam ak ñi ngante mooy ñi topp ci ginnaawam di ay xalifaam dañu mas a jox li ngante ne mooy bakken boobu ñu sàmm ko yonente bi sallallahu alayhi wa bu daan yabal ñi mooy saxaaba yi ci ab dëkk dan bokk ci li mu leen daan digal bu ñu rey bakken boo xamante ne jigéen la wala bakken boo xamante ne xale la lu dul ka ne moom ngeen jaamaarloo ak tey ñi nga xam te ñoom la yàlla dénk doole bu ñu ñëwee cim réew amuñu li nga xam mooy diw la ñu amal jafe-jafe waaye ñëpp la ñu bombardé xoola jàngale bu rafet bi yéen sallam doon jàngal saxaaba yi bu leen rey bakken boom te ne jigéen la wala koo xamante ne xale la waaye ki ngeen jaamaarloo ci front bi moom boo leen ko jékkooy na ngeen ko rey ndaxte loolu mooy santaane borom bi Seydina Omar ibnu Xataab yàgg nañu dégg daana wax ne li nga xam te lépp loo tàmbalee fi nga mooy Madina jëm li nga mooy Iraq loolu lépp dama ko war a sàmm jàppandil leen li nga mooy seen dund xattaa ba si li nga mooy berkel mu ne berkel bu doon ndox mala ci li nga mooy mbeddi li nga mooy Iraq ba daanu man Seydina Omar danaa gëm ni ëllëg yowmal xiyam yàlla dina ma laaj yow Omar lan moo tax jàppandiloo ko li nga mooy yoon wi moo mbokki jullit yi li ngante mooy xew tey suñu réew yi ci ay bakken yuy rot ci anam boo xamante ne kenn xamul lu mu doon ak sañ-sañ boo ne doomu aadama yi am nañ ko sañ si ñàkk li ngante mooy seen sago ak ñàkk jël matukaay yi ngante moom lañu ñu war a sàmmalee nit ñi seen dund loolu du li ngante ne mooy lu lislaam digle waaye réew moo xamante nit réew moom dañu teg ceeni mbir ci lislaam réew moom du demee ni ngante noonu lay demee tey ndaxte war nañoo fexe ba nit seeni jumtuwaay yi ngante moom la ñuy ware ñu fexe ba jumtuwaay yooyu nekk yu mucc ayib waaye ñi nga ñoom lañu ñu dénk loolu ñu koy doxal war nañu fexe ba xool loolu ndax mën nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne taxaw na di waajal li ngante mooy xaswa saxaaba dafa taxaw ci kanam nekk yonent bi jox ma lii boo mun nga doon laaj jaasi ngir mu jaamalook li ngante ne mooy noon bi yéen tam ne ko déedéet da nga faible ci gàddu lii antaloo ko responsabilité yi ngante moo ci aju ngir nga mën koo gàddu jaamaarloog noonu bi loolu dajewul ci yow taxawaay boobu moom lañu ñu war a taxawee ci ñi ngante ante ñoo nekk tey ci xarale yi nga xam ne nit ñi moom lañuy ñuy yéeg ngir doxi seeni soxla ndaxte dund gi mante te ñàkk nit ñi jóge ci gox dem beneen gox faaw ñu yéeg ay warwaay comme ña ñu dénk yooyu war nañu fexe ba ñoo ñu nekk ñu apt ngir mën a doxal loolu xarala yooyu wala jumtukaay yooyu ñuy yéegit war nañoo fexe ndax la mu war wala la ngante war na ci ca nañ koy saytoo mu nga ca bu ko defee ngir ñu mën a sàmmal nit ñi seen bakken ginnaaw loolu mbokki jullit yi ci sàmm bakken booba kenn du ko rotal waaye bakken bi ci biiram damir bi ngante moom mooy defar doomu aadama mu nekk jëmm joomte ne ju pare ngir santaane borom bi mu taxaw ci waaye li yàlla tere mu bàyyi bakken boobu it dañ ko war a yar dañ ko war a defar moo tax ci loolu maa yi al umur allati tudannisu an nafs ana yenn mbir mooy yi nga xam ne moom mooy tilimal bakkenu doomu aadama mbokki jullit yi mbir yooyu mën nañ leen tënk ci benn mbir ngante moom mooy seen bopp muy almasiya muy mooy yàlla mooy yàlla tabaraka wa taala bakkaar moom mooy mbir mii gën a te moom mooy njomboxtalu boole mbir yi nga am te ñoom ñooy tilimal ba moo tax jullit bu nekk dafa war a moytu li nga ne mooy mooy yàlla dafa war a moytu bàkkaar ndaxte bàkkaar dafay ronger maanaam dafay rey li nga mooy xolu doomu aadama day dem ba bakken bi yëg-yëg bi mu doon am day dem ba yëg-yëg boobu day dee moo tax yéen de soxna doon na misaal saxaaba yi mu ne leen gis nga nit ki bu dëkkee ci ay mooy yàlla day dema dem ba mel ni benn wañ bu tegu nii ci boppam mu fel ko ci bakkenam mu fel ko dootul yëgati li ngante mooy bàkkaar waaye jullit bu juumee ba tàbbi ci bàkkaar nee na day tiit day mel ni montagne moom moo ko sëpp di waaj wàcc ci kawam waaye loolu benn yoon la bu ñaaree ñett di dem nag di dem xattaa ngay def kabaayir bàkkaar yu mag yi yi xam te tey mu ngi ne xuus suñu penc mi su boobaa bakke ne dañuy dee yëg-yëg bi ñu doon am dootuñu ko amati moo tax borom bi tabaaraka wa taala mu ngi ñu misaal ci alquran borom bi nee na xool leen misaalu sama jaam bi jaam bi man yàlla maa ko joxoon samay aaya yàlla jox ko li gën a mag moom mooy diine jox ko lii gën a mag moom mooy waxu borom bi tabaaraka wa taala mbokk mu jox ko lii gën a mag mooy alxikma muy xam-xam borom bi neen fan salaxa minha mu danc maanaam mu mel ni mbir mi dafa teexala ko ak moom mais lan moo ko yóbbu foofu bi sababi li ngante mooy ay bàkkaar moo tax bàkkaar dana yóbbu jëye nit ci wàccuwaay bu kawe waaye yóbbu ko li ngante ne mooy ci fu suufe summa radadnaahu asfala saafiliin yàlla ne dañ ko bindoon teral ko fonk ko teg ko fu gën a kawe waaye mu dem a dem a dem ba mujjee suufe li ngante mooy suufe lan moo war a lool mbokki jullit mooy li ngante mooy bakkaar jàng ci li nga xam mooy taarix histoire nitu yàlla boobu nga xam te dem nañu ba wax ne xamoon na li nga xam te ne mooy turu yàlla bi gën a màgg jaamu yàlla ju sel ak rafetal diggante ak boroomam waaye mu dem a dem ba li nga xamante ne ñàkk loolu lépp borom bi ne mu dem ba topp ba kenam waaye mooy ci li nga xam mooy suuf bànneexu àdduna yi xëcc ko noot ko mu tàmbalee tàbbi ci li nga mooy bàkkaar kon mbokk yi bakken boobu li ngay jëlee ci yëg-yëg boo moroon am ci boroomam moom mooy mu dëkkee def ay bàkkaar yeneen yi nga ne nag mu ngi ci suufam di yóbbu li ne mooy bakken bi ci bàkkaar yooyu bokk na ci mbokki jullit ñàkk xam bépp bakken boo xamante ne xamul man na tàbbi ci loo xam ne fa mu koy yóbbu mooy lu koy jubadi ak boroomam lu koy rëkk ci li nga xamante ne mooy yëg-yëg bi mu waroon am diggante ak boroomam bokk na ci mbokki jullit di mooy di saggan ak di yeexe ay wareef yoo xam ne waroon na ko comme ni kenn waxee si xadis ne doomu aadama ëllëg bés balaa muy séqi benn jéego baneen bi di fekk moroomam lu dul danañ ko laaj ñeent mu tudde si ñeente yooyu li nga xamante ne mooy ndawam ci lan la ko rappelé waaye li ngante ne mooy dundaamit ci lan la ko jeexale kon mbokki jidit suñu dunda li ñu ciy def nañuy def loom te yàlla gërëm na ko suñu waxtu yi suñu jot yi ngante mooy suñu occupation ngal waaye na nekk loom ne yàlla gërëm na ko waaye su fekkente ne mbir la boom dafa méngoo ak àdduna jéngalool ci àdduna daf lay soril li ngante mooy sa yëg-yëg sa diggante sa borom waaye mu lay jéngaloo di la xëcc ci li ngante moom mooy àdduna moo tax itam ne yooyu danañ ko laa ñikk ëllëg bu taxee ci li ngante mooy boroomam beneen bi ngante moo ci topp mbokki jullit yi ci yi ngante ne man na tilimal bakkenu doomu aadama mooy doomu aadama di def ay jëf wala ay geste yoo xamante ne yu yàlla gërëmul sa diggante ak doomu aadama la ngay wax ak ñoom dafa war a nekk wax ju rafet waaye jëf yi ngay def waru nekk jëf yoom te ne jëfu njaay àll la jëf yoom te jëfu mala la waaye da nga war di jëf ay jëfu nit ndaxte yooyu boo ko tàmmee daf lay génne ci cadre doomu aadama bi nga nekkoon yëg-yëg bi nga amoon mooy doomu aadama gi nga xamante moom lañ la doon wax yóbbu la ci li nga xam ne wàccuwaayu mala yi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa alghafur rahim الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله النفس ما يزكيها إن زكاة النفس منة يكرم الله سبحانه بها man sabaqat lahu lxusna wa inna talaba almukallafi tilka alminna fardun lazimun alayhi wa zalika bi fili ma tuzakki bihi nafsa min al amali sharaa allahu azza wa jalla wa ala mbokki julliti cant ñenn borom tabaraka wa taala di làqatu ci moom mboolem suñu ñaawteef jëf ak bon ba kenn julli ab yonentaam sallallahu alayhi wa sallam ñaanal lay saxaabaam ak képp konte ne ñu ngi jaar seen yoon mbokki jullit léegi bakken boobu ginnaaw bi ñu xamee yi koy tilimal ana yan mbir moom mooy sellal bakkenu doomu aadama bi mbokki ñu bokk yàlla borom bi tabaraka bi mu bindee doomu aadama daf ko xéewalal xéewal bu mag mooy mu am bakken boo xam ne bakken bu yëg ba kenn bakken mu nag bii muy ñëw ci kaw suuf loolu la ëndaale waaye bi mu nekkee mu kallaf borom bi tabaraka wa taala moo ñaale ko ak ak nite doomu aadama muy yëg ay yëg-yëg yoo xam ne nekk bi mu nekk doomu aadama faw mbir yooyu mu koy yëg mbir yooyu nag yi ci bari dafay dëppoo ak li ngante ne mooy bànneex waaye dafay jege lool ay rafetal yoo xam ne seytaane moo ko ngi rafetal borom bi xamal ñu loolu waaye sàkku ci doomu adama li ñu tudde at taxyiru ila al axsan mooy mu soppeeku tàggat ba kenam yóbbu ko ci li ngante mooy lu rafet borom bi ne wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha waaye qad aflaxa man zakkaaha borom bi ne maa ngi giñ ci bakken ak man yàlla na ma ko mooñaale borom bi ne bakken dafa am ñaar yàlla ne na roof naa ci bakken mooy bindaale naa ko fujuraha ak kàccoor bakken bu nekk am na kàccoor ak nag caay-caay joo xam ne mu ngi ci moom caay-caay googu nag moo tax nit mën na def jëf dang naa ndax nit moo def lii xanaa du diw kañ moom moo mel ni foofu bakkenam daf ko not ay bànneexam not tàggat gi mu ko a tàggat mu sàggane ko mu yóbbu ko ci li nga xamante mooy fujuru ak kàccooram waaye nag yàlla nee na defaale naa ci moom it wa taqwaaha ak ragal yàllaam ragal yàlla googu nag yàlla nee na góorgóoru leen ba qad la man zakkaaha góorgóoru leen ba bakken bi ngeen fexe mu nekk bakken boo xam ne bakken bu sell ci tàggat ko ci li nga mooy li yàlla gërëm moo tax bokk na mbokki jullit yi mbir yi nga xam te dana dimbali doomu aadama ngir mu sellal bakkenam boobu bi ci njëkk mooy tawxiidullahi subhaanahu wa taala mooy wéetal yàlla tabaraka wa taala bañ a bokkaale yàlla li nga xam ne yàlla moo ko moom ci ak jaamu ñu jox ko ko wéeru ci li nga te ne mooy kiiraayam ñu wéeru ci moom waaye bu ñuy sakku ndimbal ak bu ñuy li nga te ne mooy ñaan ak bu ñuy yaakaar di tawakkul duñ ko def lu dul ki ngante mooy yàlla tabaraka wa taala waaye fekkee doomu adama lépp lu muy yaakaar ci leneen lu dul yàlla la koy wéer buy sàkku li ngante mooy ndimbal ci keneen ku dul yàlla la koy sàkku waaye buy làqatu ci keneen ku yàlla lay làqatu bakken boobu tilim na ba noppi ndaxte lii gën a màgg muy wéetal yàlla jox ko ay moomeelam loolu ñàkk na ko ba noppi te tawxiid nag bu ñàkkee ci doomu aadama doomu aadama ki jullit yi amatul li ngante mooy leneen beneen bi si topp moom mooy di def li ngante ne mooy muxaasaba mooy di régler sa bopp doomu aadama su fekkente ne suñu mbiri àdduna moo xam ab boutique lañu yor wala entreprise wala société dinañu dem ba ci yàgg ñu toog ñu xool ndax mbiri mu ngi dox wala déet ndax am nañ li ngante mooy nga ñaay wala ñu ngi tàbbi ci pertange su fekkente ne alalu doomu aadama alalu àdduna moom moo jar loolu waa lan la war a tollu koon li ne mooy sa àllaaxira mbir moo xamante ne moom mooy wane sag texe sa kanamu borom walla mooy wane sag li mooy texee di ak tàbbi li ngante mooy safara kon mbir moom naka lañ ko war a jële kon moo tax doomu aadama war na am ay waxtu ak ay jotaay yoo xam ne dana toog digganteem ak li nga ne mooy bakkenam mu yar mu xool la ci baax mu dolli ko waaye la nga xamante ne moo ci baaxul boo mbokki jullit mu bàyyi ko beneen bi nga xamante moom moo ci topp ci nga xamante dana dimbali doomu aadama bi ngir muy am bakken bu sell mooy at tawbatu ilallah mooy di tuub di dellu ci yàlla benn doomu aadama matul amul kenn koo xamante ne yàlla bind na ka te du def bàkkaar yonent bi nee na kullu bnu aadama xataa waaye wa xayrul xataa'iina attawaabuun doomu aadama yëpp yàlla daf leen mooñaale ak njuum parce que insaan lañu mooy kuy fàtte fàtte gi ñuy fàtte ne moo ñuy tàbbiloo ci bàkkaar manta ñàkk ñu def bàkkaar waaye nag lii boroom bi bëgg mooy ginnaaw bàkkaar ñuy dellu ci moom ñu koy jéggalu waaye nag def bàkkaar te doo tuub su boobaa la ñu waxoon cànk ci xadis yonent bi sallallahu ngante ne bàkkaar day dema dema dem ba li ngante mooy xol foofu lay yóbbu doomu aadama kon foofu nu ñuy tuub borom bi tabaraka wa taala nee na wa tuubu ila allahi jamian laallakum tuflixuun na ngeen di tuub yéen ñëpp di dellu ci li ngante mooy seen borom ndeem bëgg ngeen li ngante mooy texe mbokkee bi ngante moo ci mujj mooy zikrul mawt wasaa mooy di bàyyi xel li ngante mooy dee nga xam ne dund gi ñu dund nii si kaw suuf nekkul li nga mooy njeexitalu mbir waaye am na gëneen dund goo xamante ne danañ ko dund bés dana jot ñu jébbal ñu suñu boroom yow dong yàq li nga mooy say jëf dara doo ko fa fekk lu dul la nga xamante ne moom nga jiital loolu doo nga fay fekk dafanuuka wa tarakuuk walaw ba maaka ma nafauk danañ la wax keroog ñu ngi nii tey rob nañu la dem la bàyyi la fi waaye bu ñu fi taxawoon ñoom ñëpp ñangante ñëw leen di fii si sëgi duñu la jariñ lan moo lay jariñ lu dul li ngante mooy la nga fa jiital moo tax ki ngante waykat bi doon ne doomu aadama amul dara lu rafet wala kër goomtee dana ko dëkkee ginnaaw li ngante ne moom mooy dee lu dul kër ga ngante moom la nekkoon daan ko liggéey ci àdduna su ko liggéeyee si lu rafet nee na kër googu texe na waaye bu ko tabaxee ci loon tee ñaawtee mbokk yi nee na loolu pertenge la kon nañuy bàyyi xel bés boobu ñoo xam ne lu mu guddi guddi gi yàgg bés bi ngante mooy bés dina set bés dina jot ñuy ji suñu boroom ñu laaj ñu ana la ñu nekkoon moom lañ jëf su fekkente ne nag yàlla bakket bi mu la joxoon da ko tàmmaloon mooy yàlla da nga ko dëkke woon ci sàggan ak jël say wax di ko dundee ci loo ne boroom bi gërëmu ko su boobaa la ngay tontu sa boroom waaye bu fekkente ne rafetaloon ko danga bokk ñi ngante mooy an nafsu raadiya bakken bi nga xam te ne yàlla gërëm na ko mooy ña nga ne ëllëg dañuy ñëw fa seen borom borom bi na ne yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbik radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati borom bi ne ñi yaroon seen bakken tàggat ko ci lu yàlla bëgg ñooñu bés bu ñuy dekk wala bu ñuy wuj seen borom yàlla day yàkkamti ak ay malaakaam naan kaan e bakken bu teey yow bakken bi ngante ne yàlla gërëm na ko ñëwal si sa boroom dellu sel ci ki ngante mooy sa borom sa boroom gërëm na la waaye dina la teral ba yow nga delloo di ko gërëm moom tabaraka wa taala yàlla na ñëwal bokk samay jaam faduxuli fi ibaadi waaye ñëwal dugg fi ngante mooy aljanna kon bokki jullit loolu mooy li ngante ne moom la ñuy dénk suñu bopp di leen ko dénk ci li ngante ne mooy topp yàlla ak moytu li ngante ne moom mooy mooy waaye fexe ba tàggat suñu bakken ni ci loo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala gërëm na ko rabbana taxabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwab rahim allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rahman ya rahim ya aziz ya jabbar اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا وما لم نعلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله